fi dajale lenn la mooy ndaw yi doon liggéey seen champ te mooy ñu ko xamul mooy entreprise bi nga xamante ne tey ñoom ñoo ñoo ñëw ci biir Touba am yéene doxal mu mel ne doxal googu nag dafa am ci loo xamante ni tey dañ ko bëgg a leeral ci ñi nga xamante ni tey ñoom ñoo ngi jël seen xaay di ko ci dugal ñu la ñuy wax ñoom mooy actionnaires yi ak ñi nga xamante ne tey ñoom dañ dañ cee bokk. te am jàpp ni liggéey bi moo ngi dox mu mel ne nag booba tey ñoo ngi toog juróom-ñaari weer yoo xamante ne nii jotuñu suñu nàmpaay buñ ko mooy lu ñu moom suñu salaire booba tey nag li ci jiitu comme ay murid nañ ñun li mën mooy jëfe ndigal jëfe ndigal gu mooy waroon takki baraza waa def marche waaye dañuy jëfe ndigal Serigne Mountakha Bachir mi nga xamante ne nii waxoon nañu mooy mooy suñu kilifa képp koo xam ne am na lu la metti na nga na nga ñëpp ci moom jooytu ko li nga xamante ne nii tey moo la naqari waaye na ñi ñi xam ni buntu boobu ñun càmbar nañ ko ci wet yëpp nag jaar nañ gauche jaar nañ droite ngir bëgg a toog xalifa bi waaye loolu habitude benn yoon. mu mel ne nag looloo waral tey ñu nag ni ñu mën a def mooy uh, woo waa presse bi ngir kat ñu mën a jàllale suñu kaw suñu kàddu ci kaw ñi nga xamante ni tey ñoo ngi koy dégg uh, xam lu ñu metti mooy képp koo xamante ni tey yaa ngi liggéey seen champ jàppal ni. képp ci ñun am na juróom-ñaari weer yoo xam te ne toog nga ko tey jotoo sa payoor loolu métti ñu euh, ba nga xam ni ñu dajaloo fi tey ngir fësal suñu naq yu xool ak suñu métti goo xam te ñu ngi koy dundu te nekk lépp nañ mën a wax ndax man dafa am loo xam ne day contradictoire ci man ndax mënuñoo wax ni euh, waa Rijal Holding ñi nga xam te ne tey nee na ñoom ñoo moom seen champ à l'occurrence ñu ci interpellé le PDG Moukhtar Sarr mi nga xam tey moo fi nekk comme le général moom mi nga xam te ne tey mu ngi fësal xaru kanam ci ñi nga xam te ñu ngi dugal seen addee ci liggéey bi nañ xam ne ndaw ñu fiy liggéey jotuñu juróom-ñaari weer seen payoor loo koy fësal nag lenn la mooy dénoncé li nga xam ñu ngi koy dund li ca des nag mooy man du ma du ma ma mënumaa jàpp ni ki nga xamante ne tey dafa ne moom mu ngi bëgg lancé wu dans le monde du transfert wàllum yónnee xaalis ak retiré xaalis ba pare bëgg am say emploi yoo xam te mun fayoo leen juróom weer ñun nag dañoo jàpp ni comme mun ñoo jot ci mun taxa lii mooy seul moyen bi ñu mën a jaar ngir joytu lu ñu metti ngir ñi nga xamante ni tey am nañ daraja ci ci ci kër gi ci fii ci Touba ñu mun ñoo jàppale. leen la nag fi ñuy daanelee mooy ñu ngi interpellé waa inspection du travail xamee ne ne leen kat am na ndaw ñu nekk Touba dund lu metti te booba tey nag ñu ngi koy muñ ndax murit moom ku ne xam ne ni yàgg jëfe ndigal ak ak wakkiirlu ci lii xam mooy mooy jàngalu sëriñ bi waaye toll nañ foo xamante ni nag li ñu métti foo ñu jàllale ko ci kaw bu ñu ko war a jot mun koo jot. dañuy réunion moom dafa dégager toutes ses responsabilités. dafa dégage toutes les responsabilités il nous a dit moom moo moomul seen champ moom dañ ko cee jël juste pour mu doxal ñetti at ngir ñetti at yooyu bu matee day day wàcc dem yoonam kon kooku am na lu ñu koy interpellé ñun ñu ñuy interpellé mooy ci le Rijal Holding c' est le 8 février passé kon donc ñun waaye Rijal Holding nañ ñuy interpellé ne leen nañu fay ndaw ñi ndax ñenn ci ñun ñii am seen doom yoo xam ne mun ñoo fay sax seen mensualité école am ñoo xam ne ñoo ngi tawat mun ñoo faju am ñoo xam ne nii ci ñun am ñoo génne nañ leen seen dëkkuwaay yi ndax juróom-ñaari weer ku ko toog war jot salaire jotoo ko yaakaar na ne kooku am na loo xamante ne mu nga ko Serigne Mountakha doon ñu ut ay buntu buntu ngir gis ko waaye jamono ju nekk saa bu ñu tàntee yoon yooyu bu mel du jàppandi juróom-ñaari weer nag moom ci jéem boppa mi xam mooy mooy kilifa kër gi moo doon xamal ne nañ ko muñal c'est juste que fu mu toll waaye dinañ ci revenir mais amul benn yoon koo xamante ne nii moom dëkk dina payor joxuñu ko ngir mun a kiteg ñun looloo xamante ne ñun daf lañ ko jëwriñ mooy ñun ñu moom mooy juróom-ñaari weer yi xamante ne tey mën na ko ci ñi xam jotuñu seen ndàmpaay te waar a fay sañu loyer ñu waar a faju faju ak ñi xamante ne dañ ko yoreel te ñu doon ay responsable ñu jox leen lu ñu moom parce que tey ndaw buy liggéey te yaakaar ci entreprise entreprise bi mënatu koo génn ci lu mu ne yaakaar naa li ci sës mooy ku nekk tàggoo ci jàmm. waaw dañuy jox lu ñu moom ñu tàggalante ci jàmm loolu la ñuy ñaan. li jëm ci wàllum liggéey ñun duñ ko def parce que ñu bëgg ñu jox ñu lu ñu moom bu ñu ko joxee nag boobaa ñoom ñoom moom seen boîte ñu xool lañ cee dox ñu doxal ko.